jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ak dellu màkka <laughs> sëñ maa ngi woon ci tomb bi nu ma santoon ci koor gi ñett ba ñeenti yoon mu jëm ci lislaam ak politique mu toll ci tànn ay ndaw yu dem ca péncum réew mañ tudde leen ay député ñu war a waxtaane lislaam ak politik moomu ma tolloon ci di xamle lislaam ak ay jubluwaayam ma tolloon ci juróom yoo xam ne nee na nit daf ko munta ñàkk ay sañ-sañam la bu ci nekk nag def na ci ay proposition <clears throat> bàyyee ko député ñoom ba xam ñoom yan proposition lañ ciy def ndax daañ fi def proposition yu gën yu yàlla yi afa xukmal jaahiliyati yabxuun euh, lu jëm ci bakkan suma borom def na ci proposition lu jëm ci alal lu jëm ci der lu jëm ci diine lu jëm cim xel su ngeen demee yéen député yi ca assemblée nationale xalaatal leen pénc mi juróom yi nu ñuy def waaw rey gi de bari na lool yoon ñépp xam ngeen ko yéen ñuy tànn député ak yéen ñu ñuy tànn liste yi coow laa ngi ne kurru ku ne na da ci bokk ba tax mu bare nii mu bare danaa ci ñëw ca kanam su ngeen demee assemblée ngeen tànnal réew mi ay loi yu leen sàmmal seen alal ji d'abord alali réew mi en tant que ministre buñ jox budget wala directeur buñ jox budget koo xam ne jox nañ la budget rek ñu bàyyi xel loolu tëraloon nañ fi nag OFNAC ak CREI yi waaw <laughs> su ngeen demee assemblée ngeen tànnal ñu proposition yu jëm ci wàllu sàmmal nit ñi seen xel bu ngeen demee assemblée ngeen tànnal ñu proposition yu jëm ci nuñ sàmmali nit aqidaam maanaam gëm-gëmam su ngeen demee ngeen tànnal ñu pour proposé ñu loi yoo xam ne dina sàmmal nit ab deram ba kenn dootu ŋàñti ŋàñtee derub jàmbur ah, islam su ñëwee su bëggee yooyu am dafa am benn benn éducation bu muy defal nit ñi mooy tazkiyatu nafsi kon su boobaa ñi ngi séentu ci yéen yéen tam ngeen wutal ñoo xam ne ci wàllu moral ci wàllu civisme ci wàllu nangam dangeen ci am loi yoo xam ne buñ ko tëralee ci pénc mi ñu mën di jàng ci suñu école yi lu mën a yar suñu bakkan yi lu lu nu mën a niteel ba ñu nite tazkiyatu nafs ba boo gisee sénégalais buy dox nafsoom du ko may mu tooñ moroomum sénégaleem nafsoom du ko may mu tooñ nit en nit waaw ci wàllu moral ci wàllu jikko yu baax ci wàllu éducation ci wàllu formation ngeen xalaatal ñu bu ngeen demee assemblée nationale ay loi yoo xam ne ci pénc mi dana tax nun ñëpp nu ànd ak sunu sunu sunu sunu bakkan ñu yar sunu bàkkan ñu yaru ba li ñépp bokk kenn ci ñun di ñëw ñaaj ko su ngeen demee assemblée lislaam dafay dafay proposé rawaabit insaniya maanaam relation yi nekk ci diggante nit ak nit rapports sociaux yooyu ngeen fexe ba yéen député yi ngeen tànnal ñu ràbbal ñu ay lois yoo xam ne dinañu dimbale ci wàllu googu waaw ndax nit Euh, spectateur joxaan mooy wax nite mooy garabam ñenn ñu ne nit nit mooy garabam ñu ne déedéet nit nite mooy garabam kon suñu amee insaaniya bu ñu nitee rek jàmm na ñooy waaw rekk tabarkal suñu waajur wa suñu Cheikh Ahmad Tidiane si ca xasidaam nga waaw xam naa dañ ci mësuñu waxtaanu fajar ndeysaan waaw waaw fa ilayka yabna mahammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani te jawharul insaan war ngeen ñoo wutal ay ay loi ay proposition yoo xam ne dan dan xam ñun ñëpp ci penc mi jawharul insaan waaw ndeysaan ndax nit yàlla daf ko fonk ngeen fexe ba suñ penc mi dutuñu fonk di nit waaw bu dee lislaam de moom am na ci proposition yu baree bari waaw ndax saxaaba yi dégg ngeen seen diggante tabarkalla ñetteel bi ci jubluwaayu lislaam te bëggoon député yi jàppale ko ci mooy iqaamatul mahabba wa rahma bayna naasi waaw nit ñi nit ñi di yërëmante nit ñi bëggante ak peuple dañuy bëggante euh, barki démb damay seetaan ci Facebook ci benn canal France 24 peut-être su nit ñi taxaw di seetaan genn golo ak mbokkum goloom genn golo ak mbokkum goloom golo yi dañoo ne ci gaar bi di yéeg di wàcc di tëb am ci golo gu dal ci benn filu courant courant ba mas ko golo gu xëm daanu moroomam golo mi ñëw nit ñaa ngi seetaan di ko filmer moroomam golo mi la di ñëw daal di jàpp ci côté mbagg mi diggante mbagg mi ak bopp bi foofu la ko doon xasanal mel ni ku koy xaw a màttaale ne ba mu yàgg mu bàyyi ko ñëw ci ndong gi waaw di ko màtt di ko xasanal ndong gi mu ko defee ay yoon yoon daal di koy bàyyi bàyyi ñaar yooyu daal di koy xooj ci ndox mi bi mu ko seppee gësam ko rek golo gi nooyi mu féete ko ginnaaw maase ginnaaw gi bàyyi golo gi dem non allahu akbar su ma adduna jëm tukki ndekete golo yi nii lañ bëggantee waaw allahu akbar loolu lislaam ni mu ko bëggee waaye waaye député yi dimbali leen ko ci am na ci yéen xam naa ko dem ñu seetaan vidéo boobu waaye seetetetet noonu la golo gi def ndeysaan morom moroom la courant bi maas mu daanu xëm bu ko kenn ximilewu dafay jóge dee golo gi ñëw waaw ci booru bopp bi mu fay ko fay xasanal ba mu yàgg mu ñëw ci ndong gi xasan ba mu yàgg mu mu xooj ko ci ndox mi seppi ko ah daal di koy foroteel kiyal ko ginnaaw gi ma maaseel ko ginnaaw gi golo gën a cocc ñu ànd dem yépp di ko seetaan filmer ko dugal ko ci internet bi waaw barki démb seetaan naa ci boo xam ne bii ab xaj mooy lab benn jën ci jën yi du xaw ma du fin la xaw ma jën yooyu ñëw agsi boot ko daf ko boot xaj bi toog ci kawam mook moom mook moom ba ca tefes ga xaj bi wàcc ne ko nii loxoom <laughs> allahu akbar xaj bi yëkkati ko loxo mel ni ko nan ko merci moom sax mu del siwaat daal di xaj bi ci la ne ko ne ko euh, du li dara noo far <laughs> yéen a ngi koy seetaan yooyu daa war a am sunu diggante nun nun nun nit ñi en tant que ay nit waaw ñu ne ci réew mi ana yan loi ak yan proposition ak yan doxalin la la la la la tànn ñu jëm assemblée war a proposer nit ñi bañ àgg ci niveau boobu ba nu yërëmante ku romb handicapé waaw ku romb handicapé sa xel sa xel dem ci diggante golo golo wala diggante jën wi ak kalb bi yow nag kii diggante nit la ak nit nan ngay def nan ngay def bu yërëmanti boobu amoon fi nekk ni buuxante ci circulation wala embouteillage du am ba nga gis oto yu gaañu kon loolu du ci am ndeysaan mbokk yi lislaam a ngi noonu yéma doon junj waaye mu koy joxoñ politiciens yi mu ñëw nag ci politique lan mooy politique su la ko lislaam waxee ahlul luxa wax la ko mooy mbooloo mu daje mbooloo mu daje cib quartier mbaa cib dëkk mbaa cim réew bëgg dëkk ba ku fa juddoo ci toll ci dal jàng am foo jànge am fu ñu la yóbbu nga mën a jàngi politique mooy mbooloo mu daje cim pénc quartier wala dëkk fexe ba ku wére ci dëkk ba am foo fajo te doo fay dara sunum réew ngay ñëw feebar di fay di faju déedéet ku feebar wër te fay dara dañu war a fexe ba mu faju te du te du fay pexe ya koy def pexe ya koy def looloy politique lu ñuy def ba ba def ko waaw loolu politique la moo xam dañuy jënd ay kart moo xam dañuy abonné moo xam lu ñuy def waaye daal waroon na nit su feebaree ñu faj ko parce que bu nit ki bu xelam nekkee ci bu amul xaalis bu du faju bu feebaree génn àdduna netti naa leen benn politique bu am solo bu professeur musa Gaye laa laa laa ci doon misaal waaw ak ab malaat waaw benn malaat bu sant ndaw waaw dëkk Géejawaay <laughs> ndeysaan banque rek tax mu feebar ndeysaan banque lool daal di feebar ñu jël taxi yóbbu ko hôpital euh, Fann <laughs> daal di koy jox néeg ndeysaan mu tëdd docteur yi ñëw di seet ba professeur Moussa Gueye docteur ñëw daal ne ko na nga def yaa ngi tane mu ne ko waaw maa ngi tane walla tane bu yem rek Moussa daal di indi ci xale yi def stage foofu benn xale ne ko sama góor gi nga joxal ma ko euh, un million cinq cent noonu noonu la pigri ba tudd <laughs> ndey Faatu jàll albir waaye nee ma noonu la pigri ba tudd waaye waa ji moom jàppul ni ak yi ab pigri la ab xaalis la ko teg ndaw ku ndaa bi moom jàppal ne dañ koy pigri déedéet un million cinq cent jàpp na moom ab xaalis lañ koy jox rekk mu jóg sangu ji mu jóg sangu ji ba set ubbi saagam sol yëre yu jekk daal di ñëw toog nag génneeb soccoom di socc di xaar un million cinq booy ba daal di fay jóge daal di ñëw ne ko euh, na nga def daal di koy piqûre un million cinq cent daal dem góor ga toog rek di socc moom ba docteur Moussa Gueye agsi fekk mu toog mu ne ko ah waaw sama waaye yow te na nga tey di mu ne ko waaw fi ni kay waxatuma dara waaye nag un million cinq bi xale bi nga waxoon joxaguma ko gis nga ci wàllu politique te xam ni xew professeur Moussa daal di xam ne kii su ne ko un million cinq bi pikiir la foofu lay des ci loxoom Moussa ne ko ah waaw joxu ko mu ne ko joxuma ko de ñëw na fi nag sànq ma pikiir ma ndeysaan Moussa daal di dem buroom yónnee ci kontam jël ci un million cinq cent di jox góor gi ne ko xam naa xale bi dafa kii da ko fàtte moom daal fala malaat ba doxe wér ne cocc ma nga ma nga <laughs> ba léegi loolu ci xeeti politique la pour wér gi yaram am kon politique ci wér gi yaram moo waral nga dégg ñu naan ministre sàngam moo ko yore ko defee ci politique nan la ñuy fexe ba penc mi ku feebar faju nan la ñuy fexe ba di di di bay lu ñuy dunde maanaam ñuy consommer local nan lañ koy fexe mu ndax politique bi ñuy doxale nii baax na ci walla déet loolu mooy politique ku jàng ba noppi bëgg liggéey nga am liggéey réew mi am ay tëli am ay tëli transport bi ñu ñu ñu régulariser ko ba bu ñu defee ne ku am oto rek sañ ngaa transporter déedéet waaw révolutionnaire Makhtar Diop <laughs> yooyu ma lim léegi ak yeneen yu ngeen ci xam pour régler lépp ba lépp ne cocc loolooy politique loolu loolooy politique waaw waaw loolu nag ab sëriñ mën na ko dara war na koo defam ah loolu ku ne xam na ne kon su boobaa ab sëriñ war na koo def ab jullit war na koo defam su boobaa da nga xam ne kon kay ab jullit war na koo def lii kat mooy politique waaw jeex na tàkk su ko defee bu yooyu amee ci penc mi junjoon naa ko ci yecca lislaam joxoñ waaw mu juróomi yëf mooy fexe ba nit ñi ñu sàmmal leen seen bakkan sàmmal leen seen am-am sàmmal leen seenum xel sàmmal leen seen gëm-gëm sàmmal leen seenum der loolu li koy def ci pénc bi loolu moo tudd siyaasa moo tudd politique waaw loolu moo moo tudd politique léegi nag ñun ñëpp mënuñoo bokk di ko def dañuy tànn aw gaa ñu ñu koy defal te njëggal leen gaa yi ñuy tànn ñu koy defal ñoo tudd ay député ñu wutal leen génn kër gu tudd assemblée nationale wutal leen ay oto wutal leen ay logement wutal leen carburant jox leen ne leen ay ci bu nu demee ba màndaa yi jeex juróomi ak peut ñu daje seet ñoom liñ def waaw yi ñu war a def yiñ ci defut moo tax campagne jëruta yaatal imam Khomeini moo ko daan wax ca ca Iran nee na campagne jërul yaatal ku fi def juróomi ak boo ñëwee ca mboolam ne leen su baaxee fal fal leen ma su baaxut fali leen ma nee na loolu jërul campagne jërul dem fenn bi lay wax na dëgg waaw su ko defee ñoo ñuy dem assemblée nationale dañ leen di tànn tànn nag mooy fekk am mbooloo ñépp baax am mbooloo da ñëw ci mbooloo mi fekk ñépp baax nga jël ka ca gën loolu mooy tànn ndax xasan ak ahsan fu ñu dajee rek jëlal ahsan waaw xasan ak ahsan fu ñu dajee rek baax na lii gën fu ñu dajee jëlal la gën xasanoog ahsan waaw rekk tabarkal mu ngoog kon ñooñu dañ leen di tànn ñoom nag duñ tànn seen bopp dañuy proposé seen bopp xeet wi tànn leen dañuy proposé seen bopp xeet wi tànn leen waaw xaw ma nag daañ def gëstu seeni jaar-jaari démb wala déet waaye daal ñu ngi noonu téeméer ak juróom benn fukk ak juróom lañ ci war a tànn yaakaar naa ne professeur Jibi xeet bi nag ñooy xeet bi nag ñooy tànn waaye ñoom ñooy proposé seen bopp wala seeni seeni seeni parti ñoom seen yooyu proposé leen moo tax list yi bari ndeysaan yàlla nu yàlla yërëm <laughs> dégg naa ñun fukki liste ak juróom ñaar ñuy xalaat léegi nag nu ñuy def ba ba man koo watee waaw gaañaa ngi cay daje waaye daal <laughs> xam nga mënoo rekk ñu fekk 47 listes yi rek nga teg benn rek dugal dem loolu moom du yomb ñu ne kon boo jëlee cinq mën a jël benn loolu dégg naa ñu eh, am na ñu ne déedéet waaw waaye daal xam naa beneen yoon jar na cee xalaat mbokk yi réew moo xam ne lu waaye def am ca 5000. bu subaa nga ami gan fa mu jëm du baax waaw looy def rek am ca cinq mille rek busu subaa nga ami gan hmm? ñépp na dañoo bëgg a dem waaw ñëpp na dañoo bëgg a dem ala kulli xaal tànn gi daal mooy kon xeet bi ñooy tànn ña leen di demal waaw ñenn ñu ne indi seenub liste waaw seenub liste ñu tànn tubaarkàlla tànn googu nag danañu proposé liste ne liste bii la ñee mànkoo ñee bennoo ñee ànd ñee lëngoo yooyu yëpp tabaraka la ci la bokk léegi waaw loolu lépp ci la bokk léegi ñee tànn ñee mànkoo ñee lëngoo ñee bennoo waaw su ko defee bu ñëwee ci tànn boo ñëwee ci jàngalem lislaam al la koy tuddee ndax am na taayin istixlaaf qëhru qalaba waaye am na al bay mooy bi ñu def léegi al bay léegi nag ahlul xalli ñi koy def mooy ñi seen at mat te seen carte génn waaw carte yi nga xam ne mooy tax nga bokk ci ahlul xalli wal iqd kart woowu lañu ñu tuddee carte d'identité ba noppi mu ànd ak weneen carte woo ko gunge ko wax carte électeur defe naa ñoom ñaar lañu boole ci benn benn kayit wi bu njëkk nag ñaar nga ci am waaw léegi nag dañoo boole ñaar yëpp ci wenn wi moo tax loolu du lu lislaam tuutal bokk ci ahlul xalli wala iqd boo dem sénégalais sa at mat fukki at ak juróom-ñett waroon ngaa bindu bu fekkee bindu nga war ngaa taxaw am yittey bàyyi sa soxla yépp dem jëli saw carte waaw bàyyi sa soxla yépp dem jëli saw carte lu tax wax naa la ne su fekkee li fi nekk baax na nga sa xal ko fi farata la bu fekkee li fi nekk baaxut nga jële ko fi farata la loolu la alxuraan di wax ne euh, wala taktumu shahada wala taktumu ashahada bàyyi leen nëbb seede lan mooy nëbb seede mooy coalition sàngam ak coalition sàngam di xëccoo nga ne coalition yi ñoom ñépp yam benn baaxu ci sunu borom ne la déedéet nun duñ ko àttee loolu dafa yomb waaw waaw tabarkàlla si cheikhu na abdul wadood yàlla na ko yàlla yokk wér moo moo moo koy firee li bon moo tane li bon a bon mu ne li bon a bon moo tane li bon a bon a bon wax na dëgg mbokk yi politique ngu noonu ñu ngi toll ci waajal tànn ñu ngi toll ci waajal campagne ñu ngi toll ci ñun ñi tànn tabarakallahu ñan lañ war a tànn ak kañ lañ koy sañ bu nu yàlla mayee nu dund ba ëllëg ñu del si jataay bi ci ahlul xalli wal iqd jamonoy tey jërë ngeen jëf ak seen ñu fa rajo tey jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncalal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii sànni wax jaww ji ba waa Côte d'Ivoire mën koo dégg yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara te soxla suñu sponsor bi C3S ak e koy jàppale in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu